alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki chrétiens yi mbokki évangéliste yi képp koo xamante ni rek yaa ngi soqeekoo ci suñu maam Adam man Pape Niang social maa ngi lay nuyu te di la ziar di nuyu suma mag suma xarit suma lépp fépp suma lu nay fone di soxna Ndeye Fatou Diop Greensboro North Carolina di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu suma mama mama Ami Ndiaye di ñaanal yal na yàlla yokkal la wér ndax sa dund gi am na solo lool nga nekk ku bëgg social. di nuyu waa Help Africa jiital ci soxna Ndeye muy groupe social bu am solo buy def liggéey bu rëy waaye di nuyu wax dëgg yàlla waa groupe Fana bi ñoom tamit ñuy def social te yàlla rek tax nekk foofee ca diwaanu France waaye di nuyu ba tey waa groupe def te yàlla rek tax mi si gën jiital ci soxna ndeytaal teg ci ñoom mama ancu ak képp koo xamante ni rek mi ngi foofu ci groupe def te yàlla rek tax waaye di nuyu waa association ànd taxawu ñu wéri di te yàlla rek tax ànd taxawu ñu wéri di international waaye plus particulièrement ànd taxawu ñu wéri di Cincinnati Ohio noonee la ñuy jëfalee képp koo xamante ni rek yaa ngi ci yëngu di liggéey ku ci mel ni Grand Mbaye Diagne footballeur international l'homme social l'homme idéal l'homme parfait di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy amal waaye di sant ak a jaajëfal mbooleem amee internet boo xamante ni mu ngi ñuy topp jamono bu nekk ay fan yu néew ñu tàbbaloon fi vidéo ki nga xamante ni mooy Moustapha Bader nekkoon ci mbedd mi soloon yére bu xonk bi te doon dund ay jafe-jafe biñ ko génnee ci këram moom ak jabaram mu nekk ci diggante bu doy waar mu mel ni grâce grâce à vous yéen ñi nga xamante ni yéenay topp Pape Niang moo xam ci TikTok bi la wala ci YouTube bi yéen satisfaire ngeen ko ba tey jóge na ci mbedd mi dinañ leen indil vidéo boobu noonu incha allahu rabbul alamin ak ubbiteef la woon waaye vidéo bi ma nara a tey doon vidéo boo xamante ni vidéo bu metti la doon vidéo boo xamante ni maa ngi ñaan yàlla képp ku koy seetaan rek mu jël ak njabootam teg leen ci kanamam ngir ñu teewlu kàddu yi nga xamante ni moo fi nar a ndax jëmm ji nga xamante ni mi ngi toog fii ci diwaanu Sébikotane ci dëkkub yaa Adama seen wax dëgg yàlla mu nekk jëmm joo xamante ni jot nañ ci ay kàddu yu dëkkandoom ñu xamal ñu ne day nit ku baax la nit la koo xamante ni lépp lu mës a am bokk na ko jaami yàlla yi waaye natt du wees te nattoo di kerkeraanu awliyaa yi ku weddi laajal xayrul anbiya sun borom moo yor ay nattoom moo tax ku nekk ci xare waroo reetaan ku nu jam yow mi am say cër yu mat sëkk ba nga mën cee tooñ nit mbaa nga lor na nga xool ci jëmm ji nga xamante ni bi muy ñëw léppam dafa matoon tey natt bi ko yàlla teg def na at tey ak fukki fan bi ko dalee ak léegi waaye mu nekk ci ay jafe-jafe yu doy waar woni so so dole aduna koye funti foyde a gore fo heewi e dow bonde boni Ndare aduna funti fuyni

waaw maa leen doole ziar bu baax a baax. ku baax tur nan la. Uh, Omar Diouf. Omar Diouf ñaata at nga am. am naa 42 ans. am nga ñeent fukki at ak ñaar ndax am nga soxna. waaw am naa soxna kay. am ngeen ay tuut tànk. waaw am nañ tuut tànk. ñaata bant la leen yàlla dénk. juróom-ñaari bant. juróom-ñaari bant lan nga doon liggéey. Uh, peinture laa doon def kay peinture. peinture bâtiment. waaw peinture bâtiment laa doon def. nekk sa sa sa liggéey bi ngay dundalee sa njaboot. waaw waaw mooy sama liggéey kay. ndax mun nga ñoo dellusil ci lan moo la yóbbee natt bu metti bii la yàlla suñu borom teg. waaw li li ma ko yóbbee euh, mooy ne dama amoon benn chantier bi ma waroon démarrer léegi nag bi ma waree démarrer sance bi ci laa jëlee échelle bi ma teg échelle bi pour wéer ko ci miir bi léegi bi ma tegee échelle bi nag après gis xaw ma woon sax ne am na fiilu euh, kii fiilu lu bi jaar ci kaw bâtiment bi loolu xaw ma ko ci gisuma ko woon xaw ma ko woon léegi nag bi ma tegee échelle bi nag ci la fil bi jëlee échelle bi waaye man li ma ci mënoon euh, nettali nit mooy ne bi ma tegee échelle bi daal loolu daal laa ci mënoon euh, nettali nit li ma ci kii yëpp après dañ ma ko expliqué. allahu akbar jërëjëf yàlla suñu borom subhanahu wa taala dégg ngeen ko nee na bi ma demee ci bâtiment bi pour war a liggéey dafa am benn fil haute tension bu nekkoon ci kaw xamu ko woon ndax boo nekkee ci biir néeg war koo defar daanaka lool doo ko mën a gis bi nga xamante ni jël na échelle bi teg ko fi mu war a yéeg pour peinture ko nee foofu la perdre connaissance mu mel ni kon courant bi dafa jël échelle bi boole kook échelle bi bi ngay njëkk a yeewu lan nga njëkk a yëg parce que bi loolu amee euh, SL euh, bi ni ñu kii dañ ne euh, courant bi dafa daf ma téye ak SL bi léegi bi ma téye nag après daf ma mujjee rejeté léegi nag bi ma courant bi rejeté daf ma sànni ci kaw terrasse bi mu téye SL bi léegi nag bi mu téye SL bi ci la yére yi jàppee commencé di lakk léegi nag am na benn femme bi nekkoon à côté ci benn balkon moo jékki-jékki mu dégg bruit bruit bi léegi nag bi mu ko déggee mu gestu ci la gestoo euh, gis ne am na ki courant bi téye ba yére yaa ngi lakk commencé na di lakk léegi instant boobu nag ci la dawee ci benn kër gi nekk foofu à côté léegi mu fëgg ñooñu ñooñu ubbi bunt bi bi mu buggee expliquer nag ci la daanu mu xam léegi nag ñu nekk ci moom nekk ci moom nekk ci moom ba mu ximili ko mu ne leen daw leen ci kaw terrasse bi gaaw parce que am na ki courant bi téye foofu bi ñu dawee fekk nañ yére yëpp jàpp léegi nak bi mu nonu euh eh, eh, yoy yep après man xaw netali dañ ma netali nettali. ka sax ma ngi solo dalu sécurité waye tank bi ñu dagg tak eh, dàllu sécurité bi dafa lak ba jeex tak allahu akbar mu jappalé ci bir bi ni giso allahu akbar la ilaha illa allah li, lii nu koy gis ni lepp a après presque nekk naa deux mois yoo xam ne principal man xaw ma sax ne man maa ngi hôpital deux mois yi ma def foofu fet man xaw ma sax médecin yi da dañuy wax ñu ne lu lu ñuy kii dam leen di wax man leen loolu de wax dëgg si yàlla man loolu xaw ma ci dara mënuma ci nettali dara ñu ne ma Diouf ma ne leen waaw ñu ne ma sant la yàlla bu baax fii lañ la daan jëlee chaque jour di la génne ci chambre bi di la yóbbu bloc yooyu yëpp mënuñu mënuñu si woon kii ma ne ma ne leen loolu de war na yàlla de man loolu yëgu ma ci dara dara dara dara ko man daal li ma mënoon nettali nit mooy ne ba ma tegee échelle bi foofu daal laa mën a laa mënoon nettali nit li des yëpp xaw ma ci woon xaw ma ci woon dara. li des yëpp Baye Aliou ci woon dara maa ngi sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy seetaan vidéo bi te yàlla tax ñu jàppale say noom Omar Diouf wallahi ndaysan may ñaan yalla yalla yalla nañu yalla dëgëral bañu mëna agalé vidéo bi ñu tambali ndax ñun ñiko tim gis lak lak yi yeen ñikoy sétane xam ngeen ni lak bi metti na lak bu dem bañu dag sey sa ñaari loxo dag sa tank ba nopi mention spéciale à tous les médecins du Sénégal parce que avons sauvé sauver gens. parce que nous avons am une négligence kon Seydina que du ko nettali ñeneen Nous won ci biir bi ngeen gis waye li ci yaram bi sa ñaari loxo damay wax ni dagguñu ay loxoom àddunaam lañu dagg dagguñu ay tànkam àddunaam lañu dagg lépp rek ngir jéem a sauver bakkanam ba Seydina Omar toog fii tey di ko nettali mu nekk loo xamante ni metti na ba ci kanamu yàlla waaye yàlla suñu boroom mooy teg ay jaamam ay nattu yu ko neex waaye ñu ngi ñaan yàlla suñu borom vidéo bi képp ku ko seetaan fu ay mënti nekk jappalel sayyiduna umar mi te jëmmi yalla rek tax bër keur gi nga dekk ndax yéen ko mo dedet fi dam fee luye dam fi luye. waaw dam fi luye. ginnaaw bi nga xamanteni nek nga hôpital ba ngay lal échelle bi sa jëm ji yëpp maton waye bis bi nga yeewoo hôpital gis ñu dindi ñu ñu amputer sa ñaari loxo ak sa tank bi kérok lan nga waaw loolu loolu moom bi ma ba ma gis te sama cër yi manqué metti woon na trop metti woon na ci man trop daan dama daan toog sama rongo ñi tuur may jooy ma ne e, dindi nañ lii man léegi lan laa dese ci sama àdduna lan laa dese parce que ku daan xëy dem daani sa doole pour li ngay andilee sa njaboot dundalee sa njaboot dem ba fi mu toll nii man mënatuma ko bi ma njëkkee yeewu man loolu laa njëkk xalaat loolu laa njëkk xalaat ci loolu waaye yooyu yëpp ma nekkee foofu ma ne a ah, comme euh, euh, dogal yàlla la dam koy nangu rek waaw li yàlla xis a daal kenn mënu ci dara waaw li may ñaan yàlla mooy ne naa naa génn ba delluwaat ci sama këru njaboot waaw waaye yooyu yëpp euh, metti na metti na metti na metti boo xam ne fi mu toll moom fu fu mettit yem rek fa la mu mel ni néeg bii nga xamante ne fi nga dëkk néeg bi jaxasoo na ndax fii mooy sa néeg fi ngay dëkk ak njaboot gi. waaw waaw mooy sama néeg xale yi fi la ñuy fanaan. yow ak sa soxna. waaw waaw. lan nga ñu mën a wax ci sa soxna. waaw soxna si moom euh, maa leen di remercier bu baax a baax a baax a baax parce que de boobu ba léegi bi ma nekk hôpital ba ni ma génnee euh, budul woon ñoom. bon man euh, day fekk day heure bi waxatuñ ko yooyu yëpp euh, dañ ma daan delloo si ma delloo si ah comme lii la yàlla dogal euh, nañ ko nangu rek waaw yooyu yëpp yooyu yëpp. yan jafe-jafe ngay jànkonteel ci sa cadre déplacement. waaw cadre déplacement moom fi mu toll nii moom mét métti na pour nga déplacé wu day jafe parce que ku yore benn tànk mënoo def yenn déplacement yi. doo ko mën doo mën a dem fenn nooy obligé nekk ci biir kër gi fii wala nga dem kër gu ma yooyu. tey euh, wax dëgg yàlla metti na trop wax dëgg yàlla maa ngi sàkku ci bonne volonté yi maa ngi sàkku ci jaamukatu yàlla yi maa ngi sàkku ci defkatu lu baax yi maa ngi sàkku ci képp koo xamante ni yaa ngi seetaan vidéo bile gis ngeen Seydina naomar li ko suñu borom xañ muy natt bu metti gis ngeen néeg bi nii benn mat laa moo fi nekk beneen baa ngi nii dañ ko wéer moom ci mat laa bi ak soxnaam xajuñu ci xale yi fan la ñuy tëdd ragal naa ñu lalal leen sër ñu tëdd ci dër bi néeg bi amul matla néeg bi amul lal amul ventilateur amul rido amul dara dara dara xool leen ko ci seen bopp yéen ñiy seetaan vidéo bi natt leen ko ci seen bopp ngeen doon góor doon soutien de famille yàlla suñu boroom teg ko nattu bii mu ko teg tey bu doon yow la lan ngay xaar di nga xam ni metti na moo tax maa ngi sàkku ci képp koo xamante ni yaa ngi seetaan vidéo bi partager leen ko fépp mu yaatu ngir Seydina Omar ñu soppi dundam ci barkeb weeru koor gu sell gii nga xamante ay waxtu ci des ngir ñu dugg ci umub koor gi maa ngi sàkku ci yéen ñi nga xamante ni ñuy seetaan lillahi wa rasulihi yéen jaamukatu yàlla yi yéen defkatu lu baax yi yéen sàkkukatu ngërmande yàlla yi maa ngi sàkku ci yéen ngeen jàppale ji tax Gori yalla la dan liggey di indil njabotam famu don liggey fa la ko natou bi dalé mu yewu ñu ñu jël ñetti cërem damay wax ni mu yewu ñu jël adunaam tay ana domami nan lañ koy gisé fasiyene yéene sen wayjur nek handicapé ñepp sen papa yi di dama ko ñëw mënta dem mënta ñew mënalul bopam dara imaginer tay mu wara def mu wara def aja doomu aadama war a dem ci wanag wi man pam ñaa yàlla bu ma fekkee loolu waaye xam naa dana yéeme dana doy waar dana metti lool kon maa ngi sàkku ci yéen jaamukatu yàlla yi maa ngi sàkku ci yéen bonne volonté yi maa ngi woo ñëpp képp kuy defkatu lu baax képp kuy jaamukatu yàlla képp koo xamante ni sàkku ngërmënde yàlla moo la ñor maa ngi sàkku ci yow nga jàppale Seydina Omar te jëmmi yàlla rekk tax te jëmmi yàlla rekk tax ngir ñu taxawu ko li mu manqué muy ñetti cëram ñu taxawu ko fas yéene don ay cëram ngir satisfaire ko ndax soxla na ndimbal dëggi dëggi ndimbal munta génn yalwaani parce que xamu ko ay doomam xamee wuñ ko génn ci mbedd mi dem di yalwaani loolu moo tax mu ni lu mu metti metti rek dama koy toog fii dund ko xaar yàlla ba yàlla di yegsi mu mel ni bu Pape Niang social ñëwee ci kër gi indi na bonne volonté yi mu mel ni Pape Niang bu ñëwee ci kër gi andi na defkatu lu baax yi bu mel ni Pape bu ñëwee ci kër gi indi na jaamukatu yàlla yi soxna Ndeye Tall Help Africa kaa leen ñu jàppale sunu frère soxna Ndeye faatu Diop Greensboro kaa leen ñu jàppale sunu frère Grand Mbaye Diagne kaa leen ñu jàppale sunu frère Seydina Omar ñu taxawu ko soutenir ko te yàlla rek tax maman Fatou Guewel fondation Noreyni solidarité maa ngi lay woo ngir nga ñëw jàppale sang bu tedd bi te yàlla rek tax di woo soxna Ndey Seen ñu gën ko xam ci may mayaasi nag muy ngi lay nit social nga man Pape ñaa xam ci dara yàgg nga satisfaire ay bu te la nga cay def doo ko sax filme kon maa ngi lay woo ci sociale boobu ngay def te jëmmi yàlla tax nga ñëw ñu taxawu Seydina Omar tey lan ngay wax ñi lay seetaan ngir ñu jàppale la te yàlla tax. li may wax ñi may seetaan moom euh, dam leen di wax ku ma mën a jàppale te yàlla tax na ma ci taxaw mu jàpp ñu jàppale ma te yàlla tax parce que fi mu toll nii euh, fi ma fi ma dëkk nii chaque weer damay fay lu te maa ngi nii mënatuma mënatuma dem liggéey mënatuma def dara samay samay njaboot dam leen di war a dundal te samay euh, euh, samay parents yi seen loxo jotul ginnaaw fi mu toll nii daal yaakaaruma kenn kenn kenn kenn kenn ku may jàppale daal te yàlla tax ki may jàppale te yàlla tax man loolu rek laa bëgg waaw may jàppale yàlla tax. fii ñaata ngay fay par weer. fii maa ngi fay trente cinq mille chaque fin du mois. ana kan mooy jaayanteeg yàlla 35 mille yi ñu bàyyi yaa Adama Sène mu yëkkati kàddu mi nga xamante ni moom ak malaat bi ñoo bokk benn koñ bu ñu dëkk mu xam ko xam njabootam xam situation xam dëkkandoo yi xam ko moom ci boppam xam ko laata accident bi di ko dal xam ko bi ko accident bi dalee ak léegi ndaw lu wéradi bul ko daw ba mu xam ko mën naa yokk la ko metti waaye an taxawu ñu wéradi TV gëm naa ne ñooy saafara wéradi yi nañ ko jappalé té yalla rek tax ya adama alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ñu dellu santaat yalla bu baax baax di tala loxo ñep rek ñu ñew jappalé ñu ci sama frère euh, Seydina Omar sama dom bajen lah. xamna ne kaddu yi bu mëna bëri dañ rek ngeen def ni ngeen daan def ndem ka bu ñu mësa duggal ngeen tek ñu loxo kon nak ñu le tay lañ ko gëna soxla ndax tay sayna Omar dafa am njabot yu sew ay tutànk rek la am te gis ngeen quoi bi ku ko gis xamne mom soxla na ndimbal kon nak ñoo leen ñu dimbali e suñu frère ngir jëm yàlla Eh, Munai kon ko xamantene ku bah ku jap nyamram ko xamante ne liggéey dong la xam lu la def si doomu aadama du mën lu lu sant rek bu neexee ñu sant su méttee ñu sant waaw ñi wo rek bonne volonté yépp yi nga xamantene pap ñaa dugalee kaa ñu def si seen loxo nañ ñu jàppale ñu taxaw Seydina Omar te yàlla tax. asalaamaaleykum waa mbokk jullit yi ñooy nuyuwaat ñëpp rek comme ni ko Adam seen waxee ak Baye Pape mu doon lu métti loo xam ni moom la sunu frère bi di dund di Seydina Omar wax dëgg yàlla muy mu doon loo xam ni waaye lépp rek dañ ciy sant ndax ndogal bi ko dal métti na na doon ngëneel ci moom kon ñuy woowaat ñi nga xam ne ñooy bonne volonté borom xol yu laab yi ñu gëstuwaat def ko comme niñ ko doon defee rek jàppale suñu frère bi comme ni ko Baye Pape wootee rek maanaam ci li nga xam moom lañuy dugg ci weeru koor gi balaa ñu ciy génn bëgg nañ suñu frère bi mënuñu ko satisfaire lépp nag ndax li jël ci moom waaye lu ci ëpp rek mu doon loo xam ne nii dina am lu mu def ci moom loo xam ne ab taw tawféex la ndax wax dëgg yàlla njabootam gi wër na ko te mënul leen dundal mënul leen mënul mënul ci ñoom lu bari te wax dëgg yàlla ñun moom dañuy ñaan rek ndimbal pour bonne volonté yi ñëw gëstu ko mun cee jàpp bu baax a baax nag ñoo ngi wàcc foofu kàddu yi tey tub na ginnaaw yi nga xamante ni ginnaaw Baye Pape dégg nañ kàddoom waxee na ak xol donte ni ronkoñ yaa ngi tàmbale flette ci bët yi yaa dama seen mënta wax ndax dafa xam li nga xamante ni moom la naa Omar di dund kaa bu ñu dem mu gën a yéeme waaye kaa bu gën a metti kaaw Seydina Omar bii man Pape Niang gisuma ko gisuma kaa bu ko gën a metti kon yow mi nga xamante ni yaa ngi may seetaan yow mi nga xamante ni suñu borom dénk na la loo am bay denc maa ngi sàkku ci yow sàkkal ci sa alal jooju noonu wala sa xaalis boobu noonu wala sa am-am mu néew mu bari ngir nga jàppale Seydina Omar te yàlla rek tax képp ku am lal képp ku am armoire képp ku am sax matelas wala nga am sax ay yére xale képp ku am ab dund muy ceeb wala diwliñ sun borom nee na képp ku layal ab jàmbu xiif nga jox ko mu lek te yalla rek tax sun borom neena na ko gënal nga tabaxal ko junni jaka junni jaka ñaata sey lañ ciy takk ñaata subhanallah lañ tudu tuddu ñaata turu yalla lañ ci magal sun borom ni dal kep ku layal ab jambu xif mom mi le tok ku ko gis xamni bula waxul ni na sax xiif na heure añ passé na waaye ba léegi daal dara cin sax tàkkagul ci kër gi may sàkku ci yéen defkatu lu baax yi may sàkku ci yenn jaamukatu yàlla yi may sàkku ci ja ñi nga xam ne ñooy jaay ay meuble def leen ni soxna Ramadien di def def leen ni soxna Ramadien di def di satisfaire ay jaam te yàlla rekk tax ak waakaay de ko gépp yàlla na mi am fay yal na fay numéro bangi nonu ci bande écran bi Wave amna Orange Money bépp transfert buy dugg Sénégal numéro bangi nonu kay len ñu satisfaire Seydina Omar te yalla rek TV la solution des personnes diminuées